tax mu ni ñii ñooy ñii ñooy ñi fiy nekk di ànd ak man ci béréb bi nuy jël décision yi ndax ñeneen ñi affecté naa leen te dëgg la ñëpp fa la ñu dëkk Cheikh El Hadji fa la dëkk waaye Cheikh daf ka affecté Cheikh El Hadji fa la dëkk Cheikh affecté ko Serigne Babacar Sy fa la dëkk Cheikh affecté ko Cheikh Ibrahima Niass Kaolack yu fa la dëkk Cheikh affecté ko cheikh abbas sàll fa la dëkk cheikh affecté ko waaw cheikh dafa ni ma cheikh alhaaji Umar moom laa jël su may dugg ci ci mondu shahada di seen àdduna di fa fekk si nit di wax ak moom wala ma fay fekk si nit di ko jox salaatul fatiha cheikh alhaaji Umar laa jël ni ko fu may jëmeetee àdduna noon ànd nga nekk sama seede moo tax kenn du cheikh alhaaji Umar cheikh nee na ma cheikh alhaaji Umar laa jël ni ko fu may demeeti ci mondu shahada di àddun di seeti sama benn taalibe di wax ak moom wala ma am secret bu mu koy jox ñëwal nga topp ma ñu ànd nga nekk sama seede ba ëllëg sama taalibe mën na ni ba nga ma koy jox cheikh alhaaji Umar mii fekke woon na ko waaw cheikh ni ci mission boobu laa affecté cheikh alhaaji Umar moo tax moom tam fu cheikh di dem mu dem fa looloo taxoon Cheikh El Hadji Omar daan wax ni ni ma miine koñu asamaan yi mooy ni ma miine mbeddu alwaar gii ma dëkk ndax fu ma fu ma ci dul jaar amul